la liberté euh, de de d'appartenance dafa am solo da ngay gis Amérique nit ñi di dem ci seen pasteur bu ñu euh, dem dem ñaani ci seen ñu xam kan mooy pasteur président bi Ablaye Wade dafa ñëw keroog ba mu faloo jubal ci Serigne Sall yi dañ ko ne gañe nga pare dem kër euh, Abdou juuf yaay Abdou Diouf jiyaar mu ñëwati daal di dem toog ci suuf am journaux yoo xam ni xam naa lu doy waar dañu fàttali ne le Sénégal a bind la République par terre te la ko sëriñ bi joxee ndigal ne ko del toog ci kaw waaye Ablaye Wade bu doon sagoom ci suuf lay toog ndax taalibe famille yu xaatal la waaye moom bu ca ba mu juddoo la ñu ni dañ ko féetale sëriñ Touba mu ciy dox muy dëggu keroog bañ demee Medinatu Salaam ñu fàttali cinquante ba muy bind lettre di wax mi ngi ñibbi si dafa bëgg ñu ñaanal ko bés bu ñibbisee mu am liggéey ah sëriñ bi nag foog naa ñaanal loxo ko ndax liggéey bi gën a kawe président amul tey jii nag ñu inauguré loo xamante régime yi fi aw yëpp ñaan nañ pour ñu am foo xamante ni dañ fi jubloo di ñaan suñu borom di ñaan si turu Serigne Touba kenn mutu leen ko def Ablaye Wade ñëw daggal leen Massalikul Jinaan ba pare joxe contribution am doole teg fi yokku Touba 7 kilomètres de chaque côté yokku Touba def ko jur Ablaye Wade nëbbu ko li euh, euh, ñu def seetam dem leen ngeen seet ko la tête du président Wade porte sur la doctrine économique du mouridisme xam nga lu tax euh, doctrine économique du mouridisme dafa wane ne leen à l'instar des white anglo-saxons protestants bi ñu ñëwee Amérique ñooñu noonu amuñu woon lu ñu bokk ñi dañu jugee Norvège ñu jugee Angleterre ñu jugee Pays de Galles ñu tase ci réew mi xamuñu lan moo leen war a mun a boole ak ñëpp nañ fa fekk ñu ne léegi kon lenn lañu bokk ñu ñëpp ay protestant lañu nañ ànd booloo kon liggéey xëye une commune la communauté boobu indi économie mu ne la confrérie mouride tubaab yi jàngaluñu dara Serigne Touba moo ko njëkkee sax américain yooyu ñuy wax wala yeneen ko euh, communauté libanaise yeeg et cetera Serigne Touba moo ko njëkk bind moo ko njëkk doxal donc mu dafa di loo xamante du théorie ci moom du kese côté religieux ci moom c'est un mode may dégg ay nit naan ab Ablaye Wade am na 93 ans na toog Ablaye Wade nee na du bàyyi mukk ndax moom murit la man murit c'est-à-dire la fëgg dënn suñu kanam ne dinaa liggéey pour sama parce que liggéey bu gën a kawe mooy liggéeyal sa réew ba keroog may sàngo ko dinaa liggéey parce que c'est ce que ma suggère c'est ce que nous apprend Serigne Touba Khadim Rasoul mooy seeti kilifaam mooy seeti sëriñam mooy seeti Serigne Touba tey jii ñu koy gunge muy honneur bu mag ci ñun honneur muy wooñu nañu ñëw leen ñu ànd ndax nag foog naa ni gis sëriñ bi rek jàkkaarloog moom texe na donc ñun ñii Ablaye Wade dafa ñuy defal loo xamante ni xëy na nit ñi mënuñu koo xam waaye raw na baati raw na gaay yi baati moom ndax ñun nag bu ñu ànd moom toog moom moom ko waxee ni magum murit na nga toog ak moom rek xam naa ni ñaanam dana dal waxuma la nag mu yóbbu la nga janoog sëriñ bi ndax comme ni ñu yóbboo woon ñu janoog sëriñ bi di Mokhtar donc texe nañ amuñu lu ñuy tiit na lu ñuy ragal ndax parti démocratique sénégalais bi suuf mukk loolu laay wax ndax la ko samp mu xaalisu Touba moo ko samp moo moo créé parti démocratique sénégalais donc tey appartenance à cette confrérie euh, victoire ci moom mais au-delà de cela toutes les communautés confréries sont concernées les Tidianes ak ñoo kontaan ne leen dañuy wasifier qui lie ce bijou, ce joyau que l'Afrique plus grand euh, la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest euh, muy loo xamante ni gis nga sax ay tubaab yu raciste bind ne nan la Sénégal mën a tabax mel mu ci fierté tey africain dafa jub dañu mën dañu wane l'islam dañ ko yëkkati umma islamique dañ ko yëkkati adduna dafa wane yëpp tey fii Massalikul Jinaan bi ñuy dem tey ñuy dem inauguré ji àjjuma donc ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm a ci Ablaye Wade di yeesal suñu tofeel ci moom di ko wax duñ ko bàyyi ndax moom la ñu gis ñu leneen gannaaw Ablaye Wade lan la am ci politique donc moom lañu ñu gëm moom la ñuy liggéeyal moom ay baay faalam lañu ay yaay faalam lañu bu ñu waxee xonk ne ko cuy ñu ne ñuul ñu ne ko ku ñu ne wax ne weex ñu ne tànn yàlla na ko yàlla ñoddi ay fanam may ko gudd fan euh, ba mu mën a fekkee keroog bu Karim Wade di dugg pale est-ce que teewee inauguration ah loolu moom di ngeen ci xam dara bu leen woon di ngeen ci xam dara xam naa xam nga itam euh, mag doo ko jiitu moom yónnee nañ ko daal moom nee na ndigal lay doxee donc gën naa ne ndigal lay doxee comme que ñun Mountakha Mbacké ci mbaaxam ci ni mu tey yónnee na fi rakkam yónnee fi délégation yónnee fi jëw mag yu fay ku wax ni Ablaye Wade moomoon mbir bi Ablaye Wade invité yëfam la jox ko nekk fu la neex loo bëgg ci invitation indi ko ah kooku kon nag gëm naa ni que euh, ah ndigal kon dafa daanu te Ablaye Wade taalibe la ndigal jëfe kon dina ko fekk ah, ah loolu moom euh, ñun mag yi ñun waxuñu jamono ji waxuñu politique li ñuy wax rek mooy tey umma islamique la ñu yëkkati retrouvaille ndax retrouvaille loolu politique la retrouvaille euh, politique gëmuma ko waaye itam li ñu demee ci yëfi ay jullit tafe bu fekkee ay jullit lañu ndax ñun suñu man sama waxu président wóor na ma ndax gis naa ko xam naa ni taalibe nit la ah bu fekkee dañu war a wax ay jullit bu ñu waree wax dinañ wax waaye politique bi saa si loolu du sama ko waaye mu toog lu ci secrétaire général national la boobu laay tontu ci muy Ablaye Wade. jërëjëf merci à vous.